Euh, monsieur le ministre gannaaw bi ñu la ñu ngi lay la ci situation 3000 euh, sénégalais yoy ñu tudde woon Allemagne waxone dañ leen di rapatrier fo ngeen ci tollu euh jafé jafé biñ ci am modi que Sénégal du dëkk bo xam dafa am guerre tay Sénégal du dëkk bo xam tay démocratie amu fa pour que ressortissants yi fu ñu mënta nekk ci aduna mëna def une demande de réfugié pour am le statut de réfugié dans un pays comme l'Allemagne loolu mo nekkoon seen erreur parce que dès lors que def nga demande pour être un réfugié en Allemagne alors que buñu gesto xamni na sa dëkk jàmm rek fa xew dara amu fa xamnañ ne déjà Sénégal nga jóge donc pour dès lors le Sénégal fay yomb jafé jafé wi kay moy këyit bi la mëna a ci avion muy laisser passer bu féké amok passeport loolu nak rôle ambassade lay don et c'est là où l'ambassade intervient parce que service immigration allemande mënuñoo rapatrier ben doomu sénégalais te ambassade donc ambassade mu ci de bonne intelligence pour que nous am une solution à ce problème mais déjà nañu que le statut de réfugié amul ben doomu sénégalais fo mënti nek ci aduna fo ko réclamer am donc lolu mu nous lu leer pas xamandoko non lénen li ci yokku que Sénégal il faut faire un choix 2 millions 3 3 millions doomu Sénégal ñu Nous

donc le gouvernement bi dafa daggu organiser ay mission humanitaire ci pays yi nga qui ne tey gis nañu ne mbëkk mi wala ñi nga xam ci géej ñu jaar yegg si fa bari nañu fa pour que ñu mën leen identifier mën leen délo Sénégal offrir leen perspective utal leen liggéey ci seen dëkk bañ dëkkoon pour que immigration génn seen xel parce que li ngay wut ci fi boo ko am sa réew gisuma lan nga fi wut ci donc ce qui veut dire te gouvernement Sénégal ci taxaway bobu la taxaw pour délo leen Sénégal. mais absolument parce que japp nañu ne dafa bokk ci image yu réew mi. Parce que la gestion Sénégalais de l'extérieur, c'est un enjeu de notre diplomatie internationale. Sénégalais, fou nek situation de précarité, Il faut que dund mën faire diplomatie. Comme nous, légui un enjeu de notre diplomatie, il faut qu'on soit regardant ba ñi nga xamantene intégré dans les pays d'accueil nek en situation régulière ou irrégulière, nous renforcer sen existence dans ces pays. Nous fay doga ñew di ci bëgg yok ci pour yaq image bobu, ñu fexé lolu c'est un choix à faire. gannaaw euh actualité bi ci ginnaaw dañu yéegoon ni sénégalais yu africain yu bare ñu ngi leen di xeex ci biir Algérie jàpp di leen rafalte di leen dello ci frontière yi est-ce que am ngeen information ci doomu Sénégal yi nga xamné ñoo fa nek waaw am nañ ci information parce que li nga xamantene tay japp nañu ko modi que ñu ngi waxtaan tout le temps au téléphone ak Moustapha Ndiaye bi nga xamné euh jot nañu am numéro mu am suñu numéro moom mu ñuy rendre compte ci situation bi fofu mun nañu toll nañ ci fukk ak juróom-benn ci vague bu mujj bi nga xamante ne raafaloon nañ leen ba yóbbu leen Tabaran mais li ci jiitu moo di que démarche bi gouvernement algérien def ñun ànduñu ci ba sunu ambassade envoyé na note verbale de protestation gouvernement wu Algérie pour wax leen ne leen conditions yi ñu arrêté sénégalais uñ ci parce que ñu ngi leen fekk fu ñuy liggéeyee wàccee la ci sa chantier jaaroo sa kër récupérer woo say bagages ñu dugal la ci oto yóbbu la ci frontière sànni la fa. mais comme déjà fait qu'on a identifié identifier sénégalais yoo xamante ne dañoo bëggoon a Sénégal ba ñu nekkoon ci procédure jënd leen billet d'avion. 16 seize yi ambassade def na une mission barki démb pour dem Tamarinset pour xool mbokk sénégalais yooyu nous ñu pour identifier leen réellement pour mën leen a boole ci liste wu cinquante yooyu nga identifier nañu pour mën leen le Sénégal par vol régulier mais ce qui est constant c'est que que gouvernement algérien waruñoo jël ay doomu africain di leen